mais également des filières qui ont eu des dimensions de plateforme. L'objectif donc de cette rencontre, c'est que le président de la République euh, s'est rendu compte que pour la prise en charge des citoyens sénégalais, la majorité de ces citoyens se trouvent dans le monde rural et dans le secteur informel et ils ont été marginalisés. Il va falloir maintenant corriger cela pour permettre à tout citoyen sénégalais de pouvoir euh, vraiment être pris en compte dans le domaine sanitaire. Et pour cela, il n'y a pas meilleure solution que de passer par euh, l'agence de la couverture maladie universelle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir pendant trois jours euh, échanger, nous permettant d'abord d'apprécier et d'évaluer ce qui est déjà fait depuis 2000, 2016, euh, mais de pouvoir effectivement prendre d'autres schémas nous permettant de toucher surtout la majorité de ces Sénégalais et surtout qui sont les paysans, pasteurs, pêcheurs, mais également le secteur informel. Ce qui avait été fait quand même était bien. Seulement, euh, il y a, euh, y a un autre chemin qu'on peut utiliser pour toucher euh, l'ensemble des euh, Sénégalais. Au niveau des communes, effectivement, euh, c'était les structures scolaires qui étaient presque visées et que également les, les, les, les cellules étaient effectivement dirigées par des enseignants. Mais comme vous le savez, les enseignants ont également les possibilités effectivement de toucher les élèves, de toucher certains parents d'élèves. Mais si aujourd'hui, avec la nouvelle démarche, euh, la CEMI pense devoir effectivement travailler avec les plateformes agricoles et qui sont partout dans le pays et surtout dans le monde rural, je crois qu'on va améliorer le travail et on parviendra à atteindre les 75% euh, du président de la mais on peut même aller au-delà de 75%. Et la collaboration déjà qu'on a vue et l'oreille attentive de la direction de la CEMU, je crois que l'espoir est vraiment fondé et que nous certainement nous parviendrons à mieux travailler pour effectivement dépasser même les 75% du président de la République, que nous félicitons au passage, qui dans le domaine de la santé, mais qui pensent trop également au monde rural et au secteur informel. Les antisystèmes, en tout cas, ont déjà pris le, le, le devant. Mhm. Nous avons constaté avec les vaccinations, mhm. les efforts que le président de la République a fait pour vraiment doter notre pays de vaccins, mais certains pensent, passent tous leur temps à décourager les gens pour ne pas aller se faire vacciner. Euh, li sabab suñu daje fii tey ñun waa MSD ak mboolem kuréelu baykat yi fi nekk. nga xam ne ñëpp plateforme paysanne bi fi nekk lu mel ni confédération paysanne force paysanne 3P ak yeneen kuréel yu mag ci réew mi ngànk mbayum Sénégal ñu daje fii tey dañu am lëkkaloo gu ñu fas suñu diggante ak semi bi nga xam ne docteur Bokar Daaf moo ko jiite ak SF bi mu àndal ah, ndax ah, gis nañ ne semi bi lu am njariñ la mu ngi dox naam waaye ba bëgg doxin bi gën a bar bar nag jëm ci monde rural bi mooy saa suñ dajeek moom fii tey lu ñu gisee rek mooy àndandoo dem si le terrain ngir renforcer mutuelle yi mu gën a dox ak am nañ yeneen xalaat yoo xam ne gis nañ ko ci doxin wi ñu fas yéene nag lël bi ñuy def tey bu ñu ci jógee lu ci bari ñu waxtaan ci ba déggoo ci ba bu buñ jógaatee nda war a daan yeneen côté xel dañuy yëngu bala ñoo yanu moo tax bu tey suñ lël bi tey bëgg bëgg nañ bu ñu ci jógee waxtaan waxtaan woo xam ne bu ñu ci jógee kenn ku ci nekk da ngay xam la nga war a def nga def ko ndax bu dajawaatee fii ak weer nattaat xam ne def nañ ay jéego yu am solo. mutuelle yi ñun niñ ko bëgg niñ ci xaar xaar bi ñu ci am du lim bi du limu mutuelle yi limu nit ñi lañ bëgg mu bari ñi ciy bokk lañ bëgg mu bari waaye du benn ñaar ñett ñeent ba jëm junne bi déedéet dañ bëgg mutuelle bu nekk ña cay faju la ci alal. man da faj ba des ba bor du am waaye fekkee métier yi bari na bor baa ngi yokk kon doxin bi des na kon faaw ñu waxtaanaat te ñu ci war a dugg ñu dëgg ñu bari seen kàttan des na ci li ñuy laaj donte président def na ci effort mu ngi def genn wàll ñu def genn wàll ci juróom-ñaar ak ñaar téeméer ñu ci bokkee waaye ñun amee ci yeneen xalaat yoo xam ne jàpp nañ suñ ko tëralee wax ko par fami jàpp nañ ne insa rab bi dana gën a dox ci dana gën a yomb bëgg nañ buñ jógee fii ba kuréel bu ne ndax plateforme bu nekk dina signé convention ak CEMI bu buñ paree def tournée nationale kuréel bu nekk da nga dem sensibiliser say membres ñu dugg ci mutuelle yi ndax du yam ci atelier bi rek ndax day am yeneen daje yoo xam ne nii ci niveau euh, comité de pilotage régional yi ak départemental yi dinañ ci def ay daje yoo xam ne ñun kuréel bu nekk dana ko càmbar da ca dox ba bu ëllëgee bu nattaatee xam ne kenn du ne bokkuma ci te boolewuma ci. néexu ta natt waaye li ma xam mooy kuréel ba ci ne ci ñun rek lu mu néew néew ña ca ginnaaw buñ duggee ëpp nañ cent mille personnes. ci tënk rek plateforme yi ñeent lañu waaye fi jàppal ne fukk kuréel ak juróom ñu ngi fi yoo xam ne kuréel bu nekk ko jiite tey ña ci gën a néew yoroon deux cent personne ña ci gën a néew am ñoo xam ne juróomi junni lañu ñuy fukki junni lañu ñoo xam ne dañoo affaire ci biir plateforme yi yor suñu kuréel yi bopp mën nañ mën nañ si cent pour cent incha allah je voudrais dire d'abord euh, toute euh, euh, tout mon enthousiasme ma fierté de rencontrer les forces paysannes. Euh, c'est parce que simplement quand on prend le décret organisant l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle, il y est dit que nous devons couvrir le monde rural et le secteur informel. Évidemment, à partir des communes, quand on a une approche donc, euh, de la décentralisation avec l'acte 2 et maintenant l'acte 3, on a toujours à l'intérieur les paysans, on a toujours le monde rural. Mais je crois que euh, là, il s'agira d'aller approcher les personnes une à une. Mais avec euh, les, la, cette plateforme et tout ce qui constitue cette plateforme, nous avons l'opportunité d'avoir des adhésions de masse. Et c'est ça l'essentiel. Au lieu de faire sur chaque personne, on le fait sur des milliers de personnes, comme l'ont rappelé tout à l'heure les présidents, parce qu'ils ont des millions de personnes derrière. Et je crois que c'est plus facile comme ça. Donc euh, organisationnel qui est là on appuie à partir de ce, ce moment. Il faut juste aussi dire que c'est important cette rencontre parce que il ne s'agit pas seulement de la plateforme, mais les mutualistes aussi sont présents. Ils ont répondu massivement à travers leur représentation nationale, régionale et départementale. On a même vu des acteurs mutualistes simples qui se sont organisés aujourd'hui. L'un dans l'autre, avec l'expérience de ceux qui sont là le terrain, la bonne initiative et l'engagement euh, de la plateforme, nous arriverons très rapidement à combler le gap qui nous sépare de décembre 2021 parce qu'aujourd'hui nous sommes à 53% de couverture. Nous espérons que donc les 25 points, les 23 points qui nous manquent, d'ici les 6 mois, comme ils sont engagés déjà, on doit pouvoir l'obtenir. Ces acteurs, c'est la population sénégalaise. Je crois que tout euh, gouvernant aimerait bien aller dans le sens de ce que souhaite sa population. Ce que nous avons dit, c'est que nous pensons qu'il faut que le système soit plus réactif, que le plateau technique soit là. Donc euh, la couverture passive devrait être réglée, les ressources humaines, euh, certaines, certains euh, examens complémentaires disponibles, donc plus faciles, de proximité. Et je pense que si on organise bien le financement de la santé à partir de la couverture maladie universelle, les services d'offres devront s'intéresser aux autres intrants qui constituent le système. Et comme ça, chacun va jouer son rôle. Globalement, je crois que si on, région par région, les choses peuvent varier. Donc, euh, la, je, moyenne. la, la, la moyenne aujourd'hui, c'est 53% des Sénégalais qui sont couverts.